bisimilah rahmaani rahim dañuy sant yàlla julli ci yonent bi di ñaanal suñu waajur bu jiitu yàlla yërëm ko xare waajur ak bépp waajur bu jiitu di ñaanal suñu yaay bi des yàlla may ko gudd fan ak wér bàyyi ko suñu kanam ak waajur yëpp ñi fi des ba njaboot gi yéene gi ñu am ci moom yàlla dimbali ñu mottali ko di nuyu na grand comme ni nga ko waxee fans yi kenn amul seen fay ñoo fi depuis ci suba ñii fi la ñu ndekkee ñii fi la ñu añee ñu ngi leen di sant bu baax a baax a baax ñu fi nekk ak ñu fi nekkul même ñu nekk ci diaspora bi ak ñu nekk sur région bi yëpp di nuyu tamit suñu mbokk journalistes yi reporters yi preneurs de son yi caméraman yëpp ñoo leen nuyu di nuyu force de l'ordre yi tamit bu baax a baax a baax di nuyu suma tambour major monsieur di nuyu Mbayang Loum l'animatrice vraiment kontaan nañ bu baax di nuyu xarit am di càmm yi écrit pastel yëpp ku lim da ngay juum mais mbër yëpp a ngi fi ñi ci am combat yëpp maa ngi leen di ñaanal yàlla mu may leen ndam ñoom tamit le 24 ñu ci amul combat yàlla may leen combat te ñu am ci ndam incha allah ñu dugg ci waxtaan bi. d'abord ñoo ngi jégalu tamit dëkkandoo yi bu baax a baax parce que lii dafa metti tey bu ñu xewlee kenn ci dëkkandoo yi du am jàmm ndax nit ñi ak biir yi ñoo ngi leen di masawu baax a baax a baax di wax leen ñoom it ñu yokk ñaan yi yàlla may ñu ndam incha allah.

yal nañ ko tal ñu ko talee it yal nañ koo fekkee te buñ ko fekkee it yal ci yàlla def jàmm ba képp kuy doomu réew mi boo ñëwee ci stade bi fekk fa jàmm te ñibbi si jàmm parce que jàmm moo xew ci réew mi moom moom la ñuy sàkku. Modou Lo ñu ngi lay nuyu bu yaakaar naa ni coow bari na wax na ca tënguwaar démb tey nga fas yéene wax ak la presse wax euh, réew mi ci sa diggante Siteu le 24 novembre coow li bari ñii ne Siteu amul sens ci combat bi. ñii ne Modou moo dàq bëri ñii ne Modou Lo moo ëpp doole ñii ne Modou Lo moo gën a taxaw physiquement ndax loolu yow Modou loo en euh, da koy confirmer wala doo ko confirmer ndax loolu da koy confirmer tey sénégalais yëpp dégg ko yaa mën yaa bu doole yaa gën a taxaw physiquement yaa dàq bëri ndax da koy confirmer wala loolu da nga koy bàyyi chroniqueur waaw am na li nga xam ni moom waxu supporters yi la wala ni nga ko waxee chroniqueur yi mais man moom ginnaaw yàlla xam naa sama bopp bu baax a baax te ñi toog di xool muy xam làmb yëpp xam nañ ñun du ñu xeeb bis bis bu ñëw dañ ciy def fulla fayda ak jom ba tax na lépp lu ñu war suñu entraînement suñu préparation nekk nañ ci dañuy ñaan yàlla rek mu may ñu tal ak fekke ba le 24 lu ñu liggéey ñu wan ko ko incha allah. ñu gis ñu gis ni combat bi moom nga gën préparé sax moom nga gën a préparé que sa diggante ak Boy Niang ak Ama Baldé ci li ñu gis ci d'après léegi euh, rumeur yi nga xamante ni jot nañ ko ci réew mi lan moo waral loolu Siteu da nga gis ni dafa dangereux wala Siteu wala fit wi dafa ma comme li gars yi naan fitam lu ko bëtam may fitam du ko ko xañ moo tax euh, Modou dem préparé wu carrément ci biir combat bi waaw ñun lamb bu mënti am parce que lamb la def métier di ñu xeeb benn benn benn benn bis ba tax na bis bi ak bis yu ñu romb moom lañu ñu dañ ciy def suñu ngor ak suñu jom man li may wax chaque fois rek foo sax bëgguma ñàkk waxuma la nag làmb xare la lépp di xaar muy say soppe muy say bañ ba tax na lépp lu war ci làmb ji def nañ ko def nañ lu ñu war a def suñuy mbokk suñu staff dañeen yàlla mañu ndam la 24 moom rek la ñu bu xeexee yow est-ce que Siteu bu xeex ak yow di ko fekk ci xeex bi wala bu xeex ak yow da koy baag xeex bi ñax ko jëm koo jàpp ñëw moom ci bëri bi. xam naa ay mbokkam ay mbokkam xam naa duñ ko conseillé mu xeex ak man parce que naar kenn du ko woo ci nguuxum soow waaw mais li ñu mujjee wax rek maa moom loolu laa koy fàttali. mu dëggal ko waaw lu tax loolu lan moo tax ay mbokkam duñ ko seetaan mu xeex ak Modou Xarañ Lo waaw ndax loolu jarul di wax ñëpp xam na yow mi xam nga non man kay xaw ma dara dama danga ne ay mbokkam duñ ko dëggal mu xeex ak man ma ne la lan moo tax nga wax loolu du Lo waaw parce que ay mbokkam xam nañ ma bu baax a baax ay mbokkam xam nañ ma bu baax a baax ragal naa su taxawee ne day xeex ak man dina def bëgget génn saako yi daal ah incha allah jërëjëf jërëjëf gars yi maa ngi leen di nuyu bu baax di leen ziar Modou maa ngi leen di nuyu bu baax di la masawu coono bu baax di masawu mboolem ku fi teew gars yi liggéey bi métti na trop. sama première question Modou mooy adversaire bi ngay bëreel di Siteu dafa miin secteur bi diggante Parcelles ak Grand Yoff ak Grand Médine dugg na fi ñeenti combat am fi ñeenti ndam daan na fi sama Pape Mor Lo daan fi sama Jos. ak Papa Sow ak Zarko cette fois ci. mais yooyu yëpp jarul nga yëg fii mooy frontière bi. fii ay teere la incha allah. bu fi génnee doon fi dugaat allah. ok dañu dégg Siteu ci biir ay waxam mu ne teg fi bi wala ma dagg bopp bi boo bañee dama lay rey. wax ji xoromu la loolu wax ji xoromu la kenn du jàkkaarloo Modou Lo naan ko da dagg bopp mais dama koy ñaan rek di ko fàttali. waaw ni mu doon waxee keroog. bu ñëwee la 24 na ko jëfee. muy la dëggal boppam loolu rek laa koy ñaan incha allah. fenn laay jeexale ak yow mu mel ni daf laa ñeme jàkkaarloo yow ne la maa la mën fuuf lu la góor mësul wax ba pare ne la loo bañ mu yëg bul ko jàppal bis maa la mën fuuf loo bañ mu yëg si bul ko jàppal bis. maa la mën fuuf ba mu koy wax jàkkaarloowul man de xanaa ci télé mais faa physiquement jàkkaarloowul ak man. góor mu dama ko wax à distance mais buñ taxawee dina ko rëcc incha allah. jërëjëf Modou Lo ñu ngi lay nuyu di ba Massawu ku gis ni ngay waxee sax xam ne taj na ay coono ndax préparation moom mel noonu di féliciter ñi nga xam ne organisé li nga xam ne moom mooy open test bi. donte liñ bëgg lépp à 100% mëntaam mais mën naa ne réussir na ko à 90 pour parce que nit def mu mat yàlla rek boo ko mën maam ñaari question bi des mooy Modou Lo de nu gis ni sa combat ak Siteu au début dañ ne amul danger da ngeen a combine ñaan da ngeen a rusante ñu dem ba ci biir données changé Siteu di wax ngay wax lan moo war a communication boobu changé seen diggante ak Siteu lan la. waaw ah non dafa lekk avance ba lekk avance faaw ñu waxante jëlew ñu avance pour raayante wala pour ay neexalante dañu jël avance pour def signature yu saf ñu bëre mais pas ay jël avance di raayante wala di non. loolu moom moo tax fi des chroniqueur yooyu yëpp ñu si bëpp jox la favori à 100 pour cent moo doo mën moo ëpp doole moo dàq bëre direction boobu nga ko koo bëre waale ci mbër boo xam ne tey neen yaa ko mën tey lan nga koy dundee yow. tey favori boobu ñu ma def. doxee ma ko waaye rek waaw. du ma ko doxee du ma ko jëfee parce que su ma ko bàyyi woon xel kon dinaa yolomal mais li ma nekkoon démb tey laa ci gën a nekk ba tax na loolu waxu ni kii la rek waa léegi. xam naa ko te incha allah yàlla na ci defal ndam bu soobee yàlla. ñu ci bëri ci expert lamb yi gis ni Modou Lo dafa yokk maas maas bi doole ju àndal la wala taayu Modou Lo ba mi xam ne moom moo gën a xam boppam ndax daa doole ko wala doole mel. waaw xam nga man moom comme dama amee staff muy entraîneur ci musculation wala ci lutte bi wala ci boxe bi. ñoom ñooy xam combat bu nekk ak lu mu laaj tax na ñun lépp lu ñu war a liggéey liggéey nañ ko poids bi nit ñee koy gis xaw ma ni sax yokku naa poids bi jërëjëf Modou Lo ñu ngi lay charré bu baax a baax di charré ñuy bàyyi xel ba du 100 pour cent découverte la Modou Lo dañoo am benn question boo xam ne la koy posé ndaxte dañoo gis ni que Modou Lo dernier combat l'a perturbé dans l'enceinte coow moom ci gàllaa ji coow ak moom ci lu bëree bëri déstabilisé ko ñëw bëri moom mu ñàkk est-ce que Modou Lo mi ngi bàyyi xel Siteu perturber ko le jour du combat si biir enceinte bi pour mën a am li mu bëgg ci biir combat bi. non man yaakaaruma mbër mën mën ma perturber ci làmb parce que du ma gan ci làmbu nag. te yàlla dogal na tàkkusaan bu ne am naa ko bu ñuy wax tàkkusaan bu mag ba tax na gëwuma mbër mu ma mën a déstabiliser si géew am na non su ma la déstabiliser su ma la déstabiliser wul kay doo ma allah la deuxième question est que Modou Lo waaw ba la c'est la pour moi dernière question mooy mooy Modou dañoo gis ne que combat moog Ama Balde combat moog Boy Niang def communication chaque jour ci biir staffu Modou Lo ñu am na coow ak Papis ñu suñ tournée ñëw jël li nga xam ne ni moom mooy eh, mais mais c'est une question mais on n'a pas de poser. ndax damay poser ne damay poser ndax Modou Lo et ñoom ñooy teg stratégie à chaque fois ñu ne Modou Lo ak Papis ils ont des déphasages ou pas stratégie la wala lan la. waaw li ma lay tontu ci loolu gars yi question la xam nga fii dañ fi ñëw pour waxtaan ku nekk wax sa xalaat wax li nga xam mais dama la bu nit bokk te ñooy laxa sooy goj yow sa waajur wala sa rak wala sa mag des ci kër gi coow mënul ñàkk waaye bu lépp amee. ñu doog a waxtaanee ko loolu lépp jàll alhamdulilah. jërëjëf euh, jërëjëf Modou Lo ñu ngi di la sargal di la yokku na poids bu musul yokk ci biir combat bi ndax loolu arrangé na waaw waaw man poids lu mu ci làmb bëri na ku yor poids bu ne poids lourd poids léger daanaka sax ñi may bëral yëpp ñoo ëpp d'habitude ba tax ay poids bu yokk ak yooyu yëpp mu wu Modou Lo euh, Siteu ay qualité yu mu ndax am na benn qualité bu Siteu yor bu métti ci moom. non non comme li rek mbër la am na ay mënit am na ay faiblesse xam ba tax na lépp ñun lu ñu war a jàngee sax bi jàng nañ ko ci am gaw dara di ma soxla ci moom incha allah mais def leen parité rek jox jigéen ñi tuuti ñoom tamit. ayca jërëjëf lépp loo xamante ni làmb mi ngi ko laaj euh, Siteu moo ngi si ñu gis Modou Lo dafa waxoon ne croix mais gis nañ saa Touba ak yi muy génn démb ñu dégg ko fi mooy jonwaar est-ce que mën nañu xaar Modou Lo mystiquement mu ñëwaat am déet. xam nga nag loolu moom boo ko laajoon ñoom koy def mu gën a neex parce que man loolu du sama domaine man ci entraînement yi laa nekk ak récupération yi ba tax na am na li nga xam ne ñoom nga koy laaj mu gën a neex. Modou ñu ngi lay nuyu. Euh, li ma lay laaj mooy gis nañ combat bi Modou Lo par rapport Modou Lo bi ñu daan gis donte am na différence mais combat bi dana relax gis nañ Modou boo xamante ni macha allah kenn Modou boo xamante ne tout le temps yaa ngi koy gis la preuve en est que barki gis nañ euh, benn polémique boo xamante ne am na que ni yaa ngi ci daara yi doon def social ñu dégg ñi ki nga xamante ne ñoom ñooy tàkkindaay yi ñu ne social boobu noonu ay sarax la yoo yóbbu ci daara yi. ah loolu mooy li may wax rek am na li nga xam waxu waxu waxu kuy siisu la man a daara lu yàgg la lu may def te kenn xamu ko mais nag comme des fois yenn yi fësal ko ndax ñi ko mënta defuñu ko di ci roy loolu moo tax ñu def ko mais aw ma sarax bu may yóbbu ci daara wallahi la azim li may def dama ko def te yàlla tax yéene wu ma ci sax yéene dama ko yéene def ko te yàlla tax kese kese kese kese combat bi dama ci relax yi da nga may gis fu ne non man dama mos a relax ci combat yëpp amaana nii ñoo bàyyi xel gis na féew ñoom seen mais man combat yëpp dama ci relax amul lu may daw amul lu may nëbbatu fu ma war a dem laay dem fu ma war a dem lu dee suma taal mais combat yëpp laa yemale baal leen ñu rek ñu yeggali tuuti beneen bi mooy da ngay dégg ñi nga xamante ne ñëpp lañu wax pour mu réussir ci Modou Lo il faut mu tegal ko lu metti ndax gis nañ ni fi ngay génn ñëpp macha allah Modou ak li muy def di muy attaqué bu may xale yi ñu ne ñëpp ne pour mu réussir ci Modou il faut mu may ko lu xotteeku est ce tamit yaa ngi ko dégg que ne Siteu bàyyi mu may ko lu méttee métti pour mu mën a. réussir lu Ama Baldé réussir ak ki nga xamante ne moom mooy Boy Niang. xanaa dañuy xanaa dañuy daje mais góor moom du ñëw pour teg lu métti ma koy bàyyi déedéet lu métti kay buñ koy teg moom lañ koy teg incha allah te gëm ne jour ba maa koy teg lu métti daan ko incha waaw salaamaaleykum salaamaaleykum seen parcelle képp laay nuyu parce que amul ku may bàyyi bi ma fi ñëwee gis naa niñ jàppee laa malom mais yàlla leen yàlla dooleel ci yoon bi ma doon ñëw parce que loolu dafa nekk sama xol parce que nit chaque jour nga dem benn koñ daj fa coono mais da ngay dem beneen koñ doo fa daj benn coono te dëgg neexul ki la rek moo la yiir mais kii moom dina xam ne ni moom am nay question parce que ale boo gis am na retour waaw première question bi ma koy njëkk a laaj mooy est-ce que xam nga ni bàyyi nga xel ni Sa Touba jël na risque bu mag première question. qui risque rien n'aura rien waaw yaa ma dégg wop wop wop sama fi taw soo bëggee dara faaw nga def dara maa la wax loolu yéen a ko jàpp risque loolu gaw ma ni risque la gis nga Sénégal fii amul kenn ku fi moom dara man mii parcelle sama papa kër la fi am uh-huh. frontière bi xanaa ci buntu kër gi lay am daa war a leer mais mënu ma tere waaw ku dugg wala ku dugg waaw làmb la ñuy def ku ci nekk ni ko sentir yëgee ko nañ la bàyyi nga defee ko parce que ku ci nekk sa liggéey ngay def gis nga ku wóorul li ngay def am loo xam doo ko sax bàyyi xel ku li ngay def muy entraînement yi teg ko ci yoon am loo xam doo ko sax bàyyi xel man foofu laa taxaw man loolu laa gëm dama gëm yàlla moom mooy maye ndam. ndeysaan sabab yi nag mooy liggéey entraînement te maa ngi ci suba ngoon guddeeg bëccëg mais le reste yëpp ay. branche la rek yu nekk ci làmb waaw beneen question bi si des mooy adversaire bi biñ koy indi dañ koo xeeboon mais bi mu jege see dañ koo naw beneen bi si des mooy xeex lañ ko ñëpp digal na ko boo mënta xeex ak Modou Lo mënoo ko daan ma ne ko xamoo ki ngay war a xeexam ndax indaale nga say matuwaay yëpp parce que Modou ku yóbbuwul say matuwaay si xeex yóbbu na la arro te boo ñëwee beneen changement léewtoo ngay léewtoo yow pare nga pour samp jagaar yi bu wootee si xeex bi da nga koy éliminer si xeex. jarul may tontu yow nga ma dèjà. waaw waaw ñëwal question bi yow tontul nga parce que wax nga ma ne ISRA sa sañ nga xeex ak Modou Lo li may wax chaque fois lamb moom laa am fulla fayda ak jom lépp lu ma am dama koy def ci géew gi kat benn tàkkusaan la ñeewu ma gàcce ñi may àndal ñeewuñ ko. beneen beneen question rek moo si des. comme nga ni moom eh, moom moo fa teg jeexal mais yow yaa fa teg dese. loo koy wax si loo dangay ngay dolliwaat cere. li ma ko tontu woon rek. waaw teg jeexal lu muy teg yëpp bisu làmb ja amu fa dara incha allah. Ah, kon kon gars yi wax waxi Modou. jërëjëf làmb la Modou maa ngi lay nuyu.